gis nañ ne état bi mu ngi chercher à corriger une discrimination et essayer de sa conformer à des textes internationaux notamment à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 mais tey bu ñu waxee ne bu ñu gisee ñu ñëw am débat boo xamante ni si dañu ko indi c'est parce que dañu jàpp ne assemblée nationale bii ñu nekk dañu ne c'est représentation nationale ñu wax ne ñun dañu fi ñëw mais indiwuñu fi suñu bopp li ñu fi indi moom mooy le peuple sénégalais peuple sénégalais boobu ñu gis ne le peuple est entrain de souffrir ci am kon on peut pas être indifférent à ce qui se bu ma déggee nag ñenn ñi di wax xam nga Sénégal li koy yàq mooy lii en réalité situation day xew ñi war wax benn discours boo xam ne discours apaisant lay doon ñoom ñoom ñooy nekk di attiser le fa di wax ay force restera à la loi l'état restera debout di utiliser ay termes yoo xamante ne si man man li ma war a wax dama koy wax te yàlla dogal ñun dañu civiliser gis nga bu ngeen taxawee fii di wax du ngeen dégg kenn di wax mais yéen bu nit ñi taxawee ngeen nekk di am loo xamante ni ci la on est dans un débat contradictoire quand vous aurez la parole vous allez venir ici ma contredire wala ngeen wax di ngeen war a wax Sénégal bu amee foo xamante ni si dafa toll yaakaar naa dafa am réaction boo xamante ni si yàlla dogal assemblée nationale nekk deuxième institution de l'État ñun si on vote des lois et si on est en train de légiférer c'est pas pour notre propre nom c'est au nom du peuple boobu bu tey tey jii nii bu amee loo xamante ne si mu ngi koy yëg jaadu na ñun ñi nga xamante ne si dañu nekk assemblée nationale ñu am noo xamante ne si dinañ ko taxawee yaakaar naa loolu moom moo tax ñu wax ne bu ñu sañoon tey jii nii ma sœur honorable Yaya booy wax duma la perturber laisse-moi terminer boo waree wax rek nga ñëw wax bu ko defee nga xam loo xamante ne si ñun dinañ ko def am loo xamante ne si dinañ dinañ dinañ dinañ ci dinañ ci taxaw en tant que des honorables députés en tant que représentant du peuple situation bi xew tey jii nii s'il des gens qui se réjouissent taxaw fii di de dënn naan man la c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de l'heure parce que am na loo xamante ne si il ne sagi plus de parti politique il ne sagi plus d'être au pouvoir ou de l'opposition il s'agit de considérer l'état du Sénégal bi nga xamante ne si moo ñu ñu nekk lu ñu nekk moo tax tey jii ñuy doon lu ñu war a doon moo tax y a des discours yoo xamante ne si dañu ko war a bàyyi dañu ko war a teg ci suuf tey jii nii yéen ñi nga xamante ne si yéen ay nekk fii di wax fii ngeen yéen di wax assemblée nationale bu coow li wuree ci biti kenn du leen gis est-ce que yéen vous le président Macky Sall est-ce que yéen ñi ngi wax ne da ngeen a bëgg président Macky Sall bëgg ngeen ko tey jii bu ngeen bëggoon président Macky Sall di ngeen wax discours yoo xamante ne si ay discours apaisant parce que président Macky Sall moom mooy tey jii nii le père de la nation tey bu population wala nation di souffrir moom moo war a génn wax ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy population bi man duma wax ak ñoo xamante ne si ce sont des transhumants venus de dernière minute li ngeen war a dem mooy wuti candidat loolu mooy seen priorité moo tax ñuy wax loo xamante ne si di ko adressé ki nga xamante ne si moom mooy le père de la nation tey Sénégal fi mu toll le Sénégal a besoin d'entendre bi nga xamante ne si moom may voir le président de la République situation bi xew personne d'entre nous euh, bu jàppee ne mën na ci génn sans pour autant yi laisser ses plumes ñun ñëpp ñu ngi nax suñu bopp nañu doon des responsables président de l'Assemblée nationale yow yaay personne morale bi nga xamante ne si moom yaa jiite deuxième institution de l'Assemblée nationale en tant que représentant de l'Assemblée nationale en tant que représentant du peuple tey jii je pense bien que yow am na rôle boo xamante ne si war nga ko ci jouer pour que stabilité bi nga xamante ne si moom la ñu xamee suñu réew suñu réew di ko dox ñu mën ci dox loolu laa amoon li may wax maa ngi jéggoo